nationale toogaloon fa président assemblée nationale ñu xool Barthélemy Diaz ak discours am bu rëy bi nan la demee. mislu suura yi mislu. Barthélémy Diaz. Oui, bonjour, chers collègues. Et je euh, salue toute l'assistance, euh, sans oublier mes amis députés de la coalition Yewwi. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, on est là à l'Assemblée nationale, non seulement pour voter le budget de certains de ces ministères qu'on trouve anormal dans l'anomie l'anomie l'anomie euh, de certains députés qui ont un comportement euh, euh, animal. Il y a des députés qui sont qui ne méritent même pas d'être à l'Assemblée nationale. Ah des députés qui ne méritent même pas de représenter le Sénégal. Vous voyez, la la, la fois passée, il y a certains des députés et certains députés qui ont chahuté parler de langage vulgaire menacer s'engager pour détruire psychologiquement certains députés de l'opposition on est là on n'est pas on n'est pas là pour discuter mais pour disputer on n'est pas là pour se disputer mais pour mm-hmm. discuter mm-hmm. donc il faut que cette assemblée nationale se retrouve mm-hmm. dans une coalition normale sinon nous les opposants de cette assemblée on va faire un recours et attaquer ce que nous devons attaquer. macha allah français yi neex dëgg yéen xeex bi yéen a indi ak loolu. silence dëgg. li ma la ngay bandi bandi lu jaay affaire sama la bi yéen a ko fi indi yow Barthélémy Dias waxoo benn dëgg ngay garaa garaalu di jaay affaire sama la gaañ ma ma wax yu dëgg eh, eh, duma eh, bàyyi mu sedd xeex bi yéen a indi. li bon li ngeen amalu leen askan wi benn njëriñ njëriñu leen dara askan wi lu dul ay wax yu ñaaw ay defante yow Barthélémy Dias foo toj ngay bandi bandi lu duma bàyyi Mariama ñi bandi bandi lu eh, sa yoon newu ci waxuma ak yow waxuma ak yow waxuma ak sa orange bi man faalewu ma la man faalewu ma la Barthélémy Dias eh, bu fekkee ne da nga nam ay mbéj bu fekkee da ngeen na ma embëj yoo fexeel ba li ngay taxaw di wax nga ñëw loolu ngeen xam góor jigéen loolu ngeen xam dóor jigéen li ngeen di réew dóor jigéen ngeen xam yoolu yéen a ko indi ayam goon ku ramaki man sama goon laa yor ku ma laal ma kil man kuma laal ma kil la laaw. bu fekkee da ngeen namm ay mbéj. si jamais sa tànk boobu bu fekkee c'est sa tànk bi tu vas voir. man je suis pas certain député je suis man je suis pas que certain député. je te casse la gueule. je te casse la gueule en dama lay duma. loolu ngeen da nga nama mbéj fekk ma fi. loolu ngeen xam. door jigéen. bàyyi ko mu ñëw. ba doole ngeen doon. silence silence. band yi ngeen du ngeen nu tudd monsieur le président si ma permet de parler de continuer ma bàyyi ma ma wax monsieur le président est-ce que tu me permets de continuer ce que je veux dire nous sommes dans une dans une république pas dans l'anarchie et c'est radiant combat scolairement ah, une défaut vous êtes une femme non seulement vulgaire vous êtes une femme non seulement qui n'est pas une femme représentable envers les femmes sénégalaises vous êtes une femme qui ne mérite pas ah d'être là ah dans cette assemblée vous êtes vulgaire li eh, ngeen xam li boo dof dafa neex bu dof dof loo bés boo dof dof loo xaw ma kuuru Macky xaw ma kuuru Macky mm-hmm. kët nga sa tànk fekk si ma fi bu keroogee mbéj boo ma la mbéj lu raw mbéj du ko def ma waaye ma la man faaleew ma la Barthélémy Dias wayu nga wayu nga bandi nga taxaw fii nga wax ma wayu bi nga doon ngay gara gara la di jaay affaire sama ko ñëw ñëwal ma laal ma kil la man goon laa yor de man goon laa yor Mariama bàyyi ma rek ma kii dafa réew kii dafa xamal elle est une femme indisciplinée elle est une femme qui ne mérite pas d'être dans cette assemblée nationale baaxuloo waroon taxaw ci assemblée nationale analphabète doo intellectuel doo analphabète xamoo dara xamadi yaru. si jamais sa tànk fekk ba tu vas voir sama jaar yi dimbale ma. dimbale ma Barthélémy Dias. il faut il faut ñëwal sa ñaawaay. ñëwal yow dimbale ma sa ñaawaay. ñëwal eh, dimbale ma nga kaña. dama wuyu ma ne dimbale ma bàyyi leen ma. ñëwal Mariétou bàyyi leen ma bàyyi leen bàyyi leen ma bàyyi leen ko. bàyyi ma Mariama ma. bàyyi ma bàyyi leen. na ñëw. ñëwal rek ma yor sama góor dépassé mbéj la mais tu vas a yàqal ma ci am. et je et eh, eh, que le procureur n'a pas le droit di dugg ci problème boo xam ne c'est entre dans l'Assemblée nationale. Ah et si jamais si jamais. Ah dugal kay kay. kay mais Barthélémy Dias yow may sama jàmm wuyu nga Barthélémy Dias wuyu nga Barthélémy reykati nit nga doo nitu dara Barthélémy Dias